Euh, comité d'organisation beeg ministre des infrastructures joxante nañu loxo euh, pour rétablir euh, mm. bërëb yi nga xam ni fa la ñuy amalee tàggat yaram n'est-ce pas mu nekk lu lu lu am solo li nga xamante ni toujours dañ koy jooy mbirum infrastructure infrastructure mu nekk loo xamante ni sportif yëpp dañ koy jooy mais surtout ci période bi nga xamante ñi ngi doon waaj Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ñu ngi ko jàppoon ci atum 2022 bii ñu jëm te ñu dàqoon ko ndax mbirum ngi ñaan yàlla. Euh, lépp ñu fàtte ko mu suñu ginnaaw mais en euh, euh, ak ministère des infrastructures ñu xool naka la teg ay pexe ba yenn ci région yi ci ëpp fi nga xamante ni maanaam ak yeneen yi nga xamante ni jàpp nañ ni diggante fii ak Mbour fi nga xamante ni jàpp nañ ni fa la infrastructure yi war a gën a mën a ñoŋee ngir ñu mën a amal li nga xamante mooy compétition yu mag yooyu nga xam ne xaar nañ ci ay ndaw yu bari Sénégal nag war ci mën a dajeek dajale passe ci euh, àddina ngir ñu mën a dawal euh, amal lii di Jeux olympiques de la jeunesse yi ndaje bi ñu ko amee woon fële ca Ndar Ousseynou Diop teewoon nañ ko ñu euh, déglu reportage bi te ñëwaat. xaatim nañ convention maître d'ouvrage délégué dox ci diggante AGEROUTE ak comité bi nga xamante ni mooy saytu lépp lu jëm ci jeu olympique de la jeunesse yu ñu war a amal ci ndakaaru ci atum 2026 ci seen i kàddu defaraat yéen ci bërëb ya dina gën a taaral lu jëm ci jeu olympique yu ñu war a amal ci Dakar ci atum 2026 l'acte que nous ñu jëmal tey am na solo loolu day wane rek ni lu jëm ci wàllu dëgg bi nga xamante nguuru Sénégal daal na koy dëggu ci jàppale bi a jàppale mouvement olympique ngir xamante si moom la ñu jëm di a jaar ci de développement dina nekk i wet daal leen jàppale ngir la nga xamante bëgg nañ ci tabax yooyu ñu mën ko amal ci ko bëggee ngir wàllu tàggat bañ fay def méngoo ak nañu ko bëggee. ci bërëb yi nga xamante sax dañ ko defaraat yeneen liggéey dañ ko fa amal ngir lu jëm ci wàllu demb ak dikk ba gën a yomb waaye tamit mu gën a méngoo ak jamono Plus encore, pour donner liggéey yi bokk na ci taaral stade Iba Mar defar ko ba mu méngoog jamono piscine olympique bi itam ñu taxawal ko parc adjacent bi nga xamante ni jëm na ci wàllu ñu daal koy taxawal ak caserne Samba Diéry Diallo ci loolu daan ci rax yenn ci prox ndoll yi nga xamante wër nañ ko ñu mën ko defaraat méngale ak jamono ngir gan yi nga xamante ni fi ñëw bu ñu ñëwee daañu mën a xam ni daan nañ koy defar ci na mu waree. programme ci kàddug Mansour Faye di ministre bu yore lépp jëm ci wàllug infrastructure liggéey bilee daan ci gën a dugal seen loxo te Ageroute la ko ca dina ko ci def ngir gën a mën a taaral bés bi. am mbégte loolu ci signature de convention bi nga xamante ni tey amal nañ ko lii nag du ni guleet ndaxte waa AFD yàgg nañuy jàppale état bu Sénégal ñun ci la nga xamante ni moo la ñu mën daan ci def suñu kamtilay kattan ngir lu jëm ci wàllu jeux olympiques yi am ci atum 2026 fii ci diwaanu Ndakaaru ñu daal ci dugal suñu loxo tamit méngale suñu liggéey ak niñ ko AFD yàgg nañuy jàppale ndaxte xam ngeen ne liggéey ñuy amal ci wàllu érosion côtière bi ñoo ci itam yoo xamante ni fii ci Ndar la côtière bi ñoo ci dugal seen loxo yeneen liggéey itam yoo xamante ni fii ci Ndar la ñoom teg nañ ci dugal nañ ci seen loxo li leen nag moom la ñu njëkk amal ci continent bu Afrique Sénégal am kon sas bu rëy mu mel na kon ñëpp dañ ci war a dugal seeni loxo voilà voilà mu ngoog. Euh, waaw vas-y vas-y mooy euh, waa comité olympique ñoom ki ko jiite di euh, Diania Ndiaye mi nga xamante ni ah. gis nga ko taxawaay bu am solo bi nga xam def na ko mais surtout ak ñoom Mansour Faye mi nga xamante mooy mooy ministre des infrastructures ci li ñu waxtaanee ngir gën a mën a ñongalaat infrastructures yi ngir waajal lii di Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xam ne jàpp nañ ko ci atum 2026 bii ñu jëm ñu jàpp ko ci fii ci Ndakaaru jàpp Mbuur ak yeneen localités yi nga xam ne fii ci Ndakaaru dañ koy soxla ay infrastructures yu war ngir ñu mën a amal Jeux la voilà jeunesse yi. voilà donc juste euh, de la jeunesse. Mm. normalement prévu à Dakar. reporté euh, jusqu'à